Omar ñu bàyyi la ak Mouna Coly nekk membre PASTEF bu Parcelles Assainies yi. Mhm. mais aussi bokk ci membre euh, défenseur yu Ousmane Sonko ah. Mhm. ah. waaw nga gën a toog toogaay bu lii rek ah ñu mën a jàkkaarloo euh, di la gërëm bu baax ci teewaay bi mais aussi di la nuyu bu baax a baax euh, ñu bàyyi la nga nuyoo mun Mouna Coly bokk ci Pastef ñu ngi lay nuyu bu baax di la bàyyi nga nuyoo. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu téléspectateur Walf TV ñu nekk tey di ñu seetaan en direct man la Mounaabou Sonko euh, membre des défenseurs de Ousmane Sonko. Mhm. Ah, yéenay soxna yi Ousmane Sonko yi quoi. ah mais damay gis euh, booy Ousmane Sonko yi ak magi Pastef fii bu dara jotee ñu nekk ci kanam mais jigéen ñi du ma leen gis ah yan fan ngeen di ne. non yow est-ce que da ngay xool kon. fan ngeen di ne. ñun moom toujours dañuy nekk devant. Ah. waaw. devant ci fan ci xeex bi. Ah, waaw ci ci lu mu mënti nekk rek. damay dégg ay arrestation ay góor rek laay dégg ñi ci kanam kay xanaa. mais y a des filles. Hmm. Mhm. mais ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di am mbégte. maa ngi di waaw euh, di wax ni nag euh, mbir dafa am ba ñu bari ñu teg leen loxo mooy ginnaaw woote Ousmane Sonko mujj bi am lu ci xew Ousmane Sonko dem tëddi hôpital ginnaaw gi démb mu génn yëkkati ay kàddu. Mhm. kàddu yooyu nag bi mu ko yëkkatee am ñu ne Ousmane Sonko da doon tappale maanaam daal mi ngi ci forme da doon dee deelu rek mais Ousmane dara dalu ko euh, nan nga jàngatee démb génn Ousmane Sonko bi gars yi gis ni ku am forme moo génn ko bon d' abord euh, pour commencer maa ngi nuyu suñu président Seydina Ousmane Sonko mu sell mi di ko ñaanal jàmm aw tawféex bu bëree bëri. bon je pense que ñii di wax loolu loo waxu politique la quoi mais parce que proche ku xam Sonko. boo ko gisee démb li nga xam ne kii daf feebar il est réellement malade. Mhm. malade comme nan. bon malaat comme parce que yaramam am na lu ci nekk loo xamante ne lu bokkul ak ci lu bokkul ci moom rek. Mhm. Mhm. mais dañ ko bëggoon a évacuer am na ñu doon wax lool mais finalement neen day toog ci réew mi quoi du dem mais bu dee ni dafa wopp rek mën na def ku mu métti Ciré Clédor Ly Ciré Clédor dem na mais moom tamit lu ko tee dem. non mais xam nga li nekk tey ci Maître Clédor nekkul ci proche parce que Ousmane Sonko il est deme demain à être à diriger ce pays. Mhm. comprendre nga te aussi dafa am tey jeunesse bi yëpp dañoo dañoo lalu tey ci ginnaaw Ousmane Sonko. Mhm. donc ak lu mu mënti am lu mu métti métti métti il doit tenir bon. Mhm. parce que tey ñun moom bu daanoo rek day day day xalangal ñu bëri ñu nekk ci ginnaaw. ba ci feebar war a faju ji. non mais Sonko il va se lever Sonko gaynde la. day jóg. mais dafa am benn paradoxe mooy les cadres de Pastef danoo génn samedi. Mhm. buñ koy wax yaa biram Souleye yaa Bassirou jomaay ñoom ñëpp génn wax évacuation pour ñu évacuer Sonko. Mhm. ñu dem 24 heures après Sonko génn wax leneen. Mhm. mais cacophonie boobu am ci Pastef loolu lan la parce que les cadres de Pastef bu ñu génnee mën a wax le bureau politique de Pastef wax ne nañ ko évacuer Ousmane Sonko 48 heures après mu génn déedéet lan moo xew. ci ñàkk déggoo boobu ci ñoo xam ne ñoo bokk parti. non ñàkk déggoo amul. amul ah. amul biir Pastef ñun Pastef on est soudé Pastef c'est une famille. Mm-hmm. lu tax waxi wute ñàkk ñàkk déggoo mënul am foofu parce que je mm. pense que mm. tey ku ci mel ni Birame Souleye ñoom bu ñu génnee ñu ne nañu évacuer proche c'est parce que dañoo inquiété wu ci état de santé proche. Mm-hmm. mais moom mi nga xamante ne tey moom moo feebar. Mm-hmm. moom moo yor ay ay ay ay médecins personnels am tey moom mi génn def déclaration à savoir xam na ne mën na faju fii. mais mais est-ce que waruñu koon laaj balaa ñuy génn ñoom maanaam comme mooy seen njiit mooy seen kilifa ñu laaj ko balaa ñuy génn mais mënuñu dem 48 heures après wax ji di soppeeku quoi. non fii benn wax soppeeku fii. Mhm. déedéet parce que déjà Ousmane Sonko pour mu génn loolu risque yu bëri mu ngi ci. comme yan nous on va pas laisser Ousmane Sonko tey muy metti sa vie en danger parce que li nekk ci dëkk bi yow xam nga ko man xam naa ko. mooy la mais mais li fiy xew rek. tey keroog li xewoon tribunal yéen ñëpp ku ci nekk gis nga teg nga ci sa bët. mais lan moo fa xewoon. lan lañ def proche. non non yow laa koy laaj. man mënoo fi ñëw la laaj mais mais liñ ko def tey liñ ko def tey ba mu mm-hmm. nekk hôpital 3 jours xaw ma 4 jours. Mm-hmm. gaaneen day tappale. mais ñi koy wax c'est parce que daf leen dalu loolu loolu waa kër ñàkk jàmm ñoo koy wax ñoom ñoom ay nitu fitin lañ même bu ñu gisee dëgg du ñu wax dëgg parce que mooy loolu. Ah, waaw dëgg ah. moom day feeñ ci xar karam. gaay neen parce que mooy génne xale yi ay bakkan des moom mooy mobiliser booy bu dee ñàkk jàmm gars yi ci moom la njëkkee. saawaay fii nii. Hmm. kon depuis 1960. kon yàgg nañ di bañ am jàmm ci Sénégal bi parce que leader yi fi jàll yépp kuñ fi woo da ngay génn ne sa njaboot dañ ma woo bërëb sàngam dañ ma woo tel jour gungee leen ma ñu dar la ni dar man dara. Hmm. loolu fii lañ ko fekk te fii lañ koy ba si ça dérange ça va continuer de déranger ñun suñu leader fu fu mu dem dañ koy topp. Hmm. on a nan xeex ba ci ba ci nan xeex ba ci baatu nan xeex. saa waay deux minutes fii nit ñi xeex nañ fi combat garsa garsa de ay termes yu tàng. peut-être moom indi na garsa garsa. Hmm. mais deux mille deux mille douze ci boppam. ña fi toog tey 2012. Hmm. ba ñuy ñëw ba ñuy ñëw tey du ñu fekk tey ci ci dëkk bi di ñu ne génn leen ñu xeex la troisième candidature de Laye Wade. Hmm. mais amoon na ay manifestation loolu noo koy woowee loolu loolu du woote ci mbedd bi. commencé wul ci Sonko te du mujjee ci moom. macha allah <coughs> eh, am na solo eh, mais eh, man dama bëggoon ñu ñëw ci angle bi nga xam ne. parce que démb dégg nañu Ousmane Sonko yàlla na ko suñu borom dolli wér. amiin parce que nekk na loo xamante ni jàmmam defe naa ni jàmm réew mi la. donc mm-hmm. yàlla nañu ko suñu borom protéger. mais démb dégg nañ ñu bari ñoo xam ni dañuy wuyoo ci turu Pastef. Mm-hmm. di nekk ci réseau sociaux yi malgré que ni am na lu booy yi def daal di taxaw xeex nañ ba lu bari def nañ ko keroog bi nga xam ni yëf yi am na mais am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nekk fële di dal ci kaw nee nañ Pastef la ñuy wuyoo di dal ci kaw ñi nga xamante ni bi ñooy leaderu Pastef bi naan ay Bassirou Diomaye fay ay euh, kii nu mu tuddati biram Souleye Birame Souleye naan leen génnu leen dangeen ngeen a war a xeex ay abbas comprendre mhm. di wax wax mais démb Sonko tontu na leen ñooñu est-ce que carrément dañuy defaral parti bi wala dañuy yàqal parti bi. seen sortie yi ñuy def. xam nga tey mënuma mënuma leen indexé. mënuma mhm. leen ne dañuy yàq parti bi mais euh, je pense que tey muy muy man muy samay moroom parce que man activiste laa. Mhm. muy man muy samay moroom. waaw balaa ñuy génnee information yi il faut ñu ciy bàyyi xel di ko di ko saytu. Mhm. parce que comme ni ko proche waxee démb day yàq day yàq liggéey bi. Mhm. donc tey ñoom je pense que xër. xër ci parti bi ak tey bëggoon lépp bëgg defar lépp tey moo tax ñu wax loolu mais je pense que doonul lu méchant en fait parce que c'est nous dans nous. waaw mais xam nga ñooñu dafa am tamit yeneen affaires yoo xam ne ñu ngi koy yàq xam nga tey boo gisee benn parti politicien bëgg a jël ne Ousmane Sonko ay ñoñam ñooy saaga kilifa diine te Ousmane Sonko taxaw na publiquement wax ni kuy saaga kilifa diine bokkoo ci man wax na ko mu leer mais am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi mbubboo kii euh, Ousmane Sonko mais dañuy tëb di wax naka sudut noonu ba ñii fi mu toll nii ci la ñuy jafandu da ngay gis sax ay kilifa diine yoo xamante ni bi parents ay comprendre uñ ak ñenn ñi nga xam ne ñi ngi manipuler di wax naan Ousmane Sonko moo ne ku dee sa ndey juraat. te loolu waxu ko dane li xale yi di wax loolu boobu defe naa ni Sénégal yëpp gis nañ ko. mais yooyu nga xamante ñooñu nga xamante ni bii tey maanaam boo bëggee jam parti Pastef boo jaaree ci ñooñu daanaka da nga koy jam c'est parce que am na ñoo xam ne dañuy wuyoo ne activiste lañ mais dañuy wax wax yoo xamante ni bi ay wax yu ñaaw di génn sax cadre politique di wax yeneen wax. te ñooñu boo leen xoolee dañuy mbubboo naan Ousmane Sonko la ñooñu est-ce que jotul parti bi ngeen wax ak ñoom tamit carrément ngir ñu xam ni am na loo xamante ne bii waru leen. gis nga yow loolu bu fekkoonte ne yow dañuy suivre ci réseaux sociaux yi ñun toujours chaque jour que jëfee. Mhm. dañuy détecter ñu koy def tey am na ñoo xamante ne je prends l'exemple sur TikTok. waaw am na ñoo xam ne ils prennent la photo de Ousmane Sonko def ko seen photo profil. Mhm. wala ñu bind taalibe Sonko ou bien membre de Pastef alors que c'est des top c'est des gens de l'APR qui font benn Pastef waa musul saaga kilifa diine ñun ay jullit xakkan lañ ay taalibe lañ te dañoo tarbi yow bokk ci ay kilif ay ay kër kilifa diine. Mhm. donc duñu mës a taxaw di saaga ay kilifa diine. Mhm. loolu amul loolu c'est des faux problèmes loolu mosul am. waaw man par exemple am na benn femme bu may gis ci TikTok bi te muy muuru wax dëgg fa yàlla wax wax ju yiw lay wax te et puis bon boo seetee bon waxam par exemple mu boole ci mu boole ci kii mais en tout cas kooku moom li ma koy suivre bari na. bari na saay waaw te muy muuru noonu. ba muy muuru lu ñuul li waaw voilà. mun mhm. euh, naa man dafa am loo xamante ni euh, démb ba léegi maa ngi koy gis muy une vidéo boo xamante ni on voit Pros ci biir otoom. Mhm. am lu koy pompe. Mhm. waa jooju koy pompe un certain si xaw ma. moom la ñu wax sax ni moo soloon capiche bi ñu ne moo ko sotti xaw ma lan. mais ci biir oto bi euh, dañu ma gis ñu pompe ko dara ñoom ñuy saqat ci biir oto bi ak yooyu. vidéo boobu yéen gis ngeen ko ak lan lañ teg seen loxo ni loolu la. si gis nañ vidéo loolu lan la. bon loolu loolu par contre mënuma ci avancer parce que liñ ko pompe exactement mënuma la ne lii lañ ko pompe non ñoom la ci seen biir oto ak ay nit waaw li ñu leen pompe ci ah, biir waaw mënuma ne lii lañ leen pompe mais li ma ci mën a wax mooy que ne liñ leen pompe tey moo tax ba proche tey ci lan hôpital mais substance bi ñu leen pompe moom je peux pas que ni lii la waaw euh, da nga ne Pastef euh, parcelle naa nekk léegi fief muy fief fu premier ministre léegi même euh, Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ñëwoon na fa ne moom euh, euh, ba wax si génn ay wax daal xam naa yàggoon nañu nekk mu ne kii Amadou Ba ragal la léegi foofu ngeen nekk noonu ba pare ngeen yor mairie bi. léegi ndax dina yomb si yéen si feefu premier ministre ngeen gën ngeen ngeen am fa taxawaay n'empêche que yéen a fay jéem a pour temps yi gis naa ñuy def fa benn meeting bu mag affaire yooyu léegi foofu ngeen bëgg a yokkee seen doole wala foofu ngeen bëgg a xeex ministre wala lan moo lan mooy tax. bon ñun tey ñun Pastef de bi ñuy bi ñuy ñëw tey Pastef mhm. déjà mairie bi bi ñu koy gagné dañ fa fekkoon koo xamante ne membre APR la muy Moussa Sy muy waale monsieur le maire Jamil Sané bu baax di nuyu la JPS euh, ñun tey ñun ñun ñu ne euh, ministre bi fa la dëkk ñun parcelle moo ñu ñor parce que ministre bi moomul parcelle parce que nous tous nous sommes des habitants de de de de la de des Parcelles comprendre nga donc tey ñun bu ñuy xeex dañuy jéem a massifier nu ñuy def tey ba ba gagné terrain bi et je pense que c' est déjà gagné quoi parce que tey Pastef foo tourné foo tourné ci biir parcelle rek ay Pastefoise nga fay gis donc man man il m'arrive sa d'oublier que le ministre fa la dëkk yow yaa ma koy fàttali nii. benn question yow jigéen nga jeune nga en tant que jeune euh, dañuy gis parti yëpp dañuy am ay jeunesse nangam ak jigéen yi section féminine yeeg yooyu yéen section féminine bi ci biir Pastef lan mooy seen taxawaay rawatina ndaw ñi. ñun suñu taxawaay tey parce que. tey booloo ngeen di joué ci biir Pastef quoi boo gis tey jigéen dafa am doole. ñun une tey dañoo dugg ci politique pour jàppale tey suñu dëkk d' abord. yow ci Ousmane Sonko nga duggee ci politique. ci Ousmane Sonko laa duggee man proche moo tax ma dugg ci politique. waaw musuma politique nag dama daan dem di voter. mais musuma dugg ci politique. d' accord ci seen rôle ci parti bi. suñu rôle mooy taxaw jàppale suñuy góor ñu xeex dëgg. di jàppale ñëpp di wàcc sur le terrain ñun dañ ñun lu góor def dañ koy def dañuy wàcc sur le terrain dañuy massifier lépp lu góor di def dañ koy def. mais dama dégg nga ne activiste nga waaw activiste eh, nga si biir parti bi wala activiste comme. ci internet bi ah hmm. ok. mais man damay ñëw ci arrestation yu bari yi parce que ñu ngi wax li mu 400 eh, boo gisee sànq li saa wax booy naan les leaders waxuñu Ousmane Sonko mais ñuy wax ay Bassirou Diomaye ñoom ba ci yeewi askan waa dañ ko gën a yaatal maanaam bu combat jotee da ngay gis rek eh, jeunes yi nekk au front mais les leaders doo leen gis hmm. arrestation yu bari yooyu. est-ce que c'est une bonne stratégie pour yéen parce que plus que ñu leen di gën a arrêté plus que seen mbooloo di gën di wàññeeku ñu ciy rey ay nit euh, nan ko gisee taxawaay boobu noonu. bon détermination rek parce que lu mënul ñàkk faw mu aw parce que tey combat bi comme ni ko Seydina soo ko waxee ku ragal nga toog tey ñun ñëpp bi ñuy dugg ci combat bi xam nañ ni arrestation mun nañu ci fekk dee sax mun na la ci fekk parce que fii lañ ko fekk lu lu mënta am faw mu am donte ñu dañ koy ñaawlu presque arrestation yi dafa bëri. dafa bëri torop te boo seetloo yàq des mineurs. dafa bëri. mais est bi démb euh, kii euh, bi mu def ci lii d'hôpitalam tey jii boo ñu ko doon résumer ak li yi ngeen ci jàpp yan nan nga ñu koy tënkale. man boobu man man sama analyse personnelle li ma si jàpp mooy le combat vient juste de commencer d'après proche nous venons juste de commencer on a on a rien perdu. par contre ñun gañe nañ territoire bi ba pare. donc daanaka ñu ngi ci cappaandaw gi. waaw fa mu nekk nii kay xeex bi ñu ngi ñu ngi ci cappaandaw gi. fii lay gën a tare fii ba 2024. Mhm. du yomb du fi am day metti rek. donc gën a defaraat toogaay bi gën a defaraat détermination bi rek fas yéene taxaw. combat suñu combat dans le respect et dans le calme. dégg naa dégg naa Ousmane Sonko mu wax benn façon benn forme xeex. Mhm. Euh, que ni ba ci. boutique yi tëj seen boutique yi def li est yaakaar nga ni forme xeex boobu dina dox Sénégal nga xam ne nit ñi euh, dañuy xëy euh, wuti ji dépasse nga xamante ni bi bu ñu amul dépasse peut-être du ñu taal kër ga est-ce que loolu bu ci duggee est-ce que kon nit ñi mënuñu wax ne échoué na nit ñi bàyyi nañ ko te fekk ne façon xeex bi moo baaxul bon du ma ne baaxul parce tey hmm. gouvernement tey pour yëkkati gouvernement parti du yëkkati gouvernement Hmm? parti du yëkkati gouvernement. Hmm. population mooy yëkkati gouvernement. et malheureusement ici au Sénégal il y a que des gens yoo xamante ne ils préfèrent vivre dans la souffrance que de se combattre pour leur liberté. Hmm. et ça c'est grave. ah loolu Sonko méthode bi mu wax nii lu mën a am la. lu mën am la tey xeex bi bu Sénégal yëpp wàccoon booloo ñu def benn link doon benn. donc je pense que tey li. dégâts yi am. waaw d'accord man xam naa ne xam naa ne xeex bi moom lu mën a lu lu lu lu lu baax la bu fekkee nit ñi suivre nañ. Mm-hmm. mais am na koo xam ni këram dépasse lay li jënd ji marché. Mm-hmm. léegi kooku bu fekkee ne dafa arrêté ne bon du ma jaay tey ndax damay xeex. Mm-hmm. te xam nga commercant bu kii beneen saa yi sax damay ñaan ne Pape Djibril yàlla mu ubbi man ma ubbi forme de xeex la <laughs> sama baar nga man mën naa ñëw ne Pape Djibril yàlla mu ubbiwut damay kontaan ndax man damay jàpp ni fa la njaay mi di gën a doxee est-ce que tamit ak idée yooyu idée commerçant yeeg ak tamit boo seetee oto yi tamit ni ko politiciens yi euh, kiiwee maanaam transporteur yi tam nga gis ay déclaration politiciens kii euh, transporteur na ñun bokkuñu ci grève bi comprendre ak yu mel noonu ak yooyu est-ce que du ne affaire bi échoué na et pourtant par yenn saa yi mais man loolu dama ko woowee échoué mais Sénégal pour defar ko. Mhm. il faut jikko yi changer mentalité yi changer ba pare. waaw nga. Mhm. parce que donte on sait que ici am na ñoo xamante ne. Mhm. dañoo am problème dépense am na ñoo xamante ne bu ñu ndekkee duñu ñu añ. waaw. bu ñu añee duñu ñu mm-hmm. am na koo xamante ne kilifa day xëy midi. Mm-hmm. ba ba soir. Mm-hmm. cent francs bu tonni tal fatal ay ne du ko am bu muy yóbbu këram dëkk bi dafa metti c'est réalité bu am la. mais tey yow est-ce que tey man dinaa nekk ci métit boobu may ñaan yàlla di wëy ci métit boobu mais damay xeex pour loolu mu jóge fi ma am ma avancé. waaw mun naa. man man d'accord xeex. d'accord mais xeex bi nag pacifique gul parce que am na ci démb rek maa ngi koy wax fii. lakk nañ ci trois Dakar dem dikk seen bus yi. lakk nañ ci dévaliser nañ ci ay placeu jàmbur ñu ñu ñu cambriolé ko. ak ñii ñu lakk seeni place est-ce que yaakaarul leen ni loolu aussi. Euh, euh, xeex bi munuñu ko ci éviter ñi nga xamante ni dañuy liggéey am seen alal teg ko Dakar dem dikk Ousmane Sonko moomu ko tey jii bu Macky Sall président Macky Sall wàccee daf ko fi bàyyi sénégalais lambda bi ci lay dugg di doxi soxlaam di liggéey di dem di ñëw est-ce que loolu baax na ñu lakk ko d'autant plus que président Macky tey wala suba it dafiy jóge bàyyi ñu fi sénégalais yi gën a sonn ci transport wala leneen loolu moom duñ ko rafetlu parce que tey euh, Dakar dem dikk bi am na ñu mu arrangé man par contre man mosuma si yéeg man mais am na ñu mu arrangé comprendre nga mais xeex moo mel noonu parce que toujours li nga li nga ñaanul de mën na am à tout moment parce que dégâts yi am ni du lu ñu souhaité man am personne souhaité wu moo ko te xam naa ñi ko doon def sax du seen souhait mais jeune jeunesse bu fippu moo baaxul au fait ñu ko mais jeunesse bu fippu moo baaxul te loolu tey je pense que état war na si mun a dox ay tànku jéego pour jubo ak askanam parce les gens sont en train de souffrir population bi dañoo sonn dëkk bi dafa metti ku baax dëkk bi dafa metti te am na ñoo xamante ne dañuy profité ci genre manifestation yi di jéem di di di def comme comme comme ñu leen di raxee nag loolu laa wax ñu ne ñi nga xamante ni muy bu ñu jógee pour dénoncer ñii pour def sambabo yi dugg ci def naka su dul noonu loolu aussi est-ce mun leen xoolaat façon non mais loolu ñun ñun ñun créé wuñu ko ma sœur ñun loolu créé wuñu ko loolu c'est la responsabilité de l'État je suis désolé mais c'est la responsabilité de l'État. comment État moo war a xool tey nu mu dimbalee askanam. Hmm. population bi dafa sonn te tey population bi moo fi teg état bi fi nekk tey muy yow muy man muy keneen a keneen ñun ñoo leen. mais am na ñu ne doo leen woote pour population mu seen bopp rek ngeen woote. loolu c'est faux hmm. man xeexaluma Ousmane Sonko que ça soit que je le dis ici en direct man xeexaluma Ousmane Sonko. Sénégal man Sénégal laay xeexal ak sama ëllëg ak sama ëllëgi njaboot. mais mais lan moo la fi naqari ba nga ni Sénégal ngay xeexal ba mu jaral la nga dem rangé wu ci côté Ousmane Sonko. lan nga gis ci moom loo gisul ci politiciens yi li ma fi neexul dafa bëri. parce que dañoo juddoo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi tukki jaa ngi ñëwaat nekk fii ci dëkk bi dem xool yeneen dëkk nu muy développé ak Sénégal te pourtant ñun ñoo leen gën fuuf maanaam si je dis gën ñoo leen ëpp ay ressources tey ñoom lu ñu am. ñun am nañ lu ko raw donc néew ma lépp va très bien mais mun nañu mun nañu jéggi tànk nekkaat ci beneen alir bu bokk ak bii ñun Sénégal war nañ dépasser ay problème hôpitaux bëgg faju doo mën a faju ay suukar su manqué ay suukar su bu cher ah. war war nañ dépasser tamit xale yi amuñu ay bibliothèque bu ñu jàngee waaw am na problème yoo xamante ni immédiatement daf fi war a jógee parce que dañ ko dépasser ñun vu tous les ressources qu'on a dans ce pays li tax ma rangé wu ci Ousmane Sonko mooy injustice bi ñuy teg Ousmane Sonko moo tax tey ma rangé wu ci Sonko ak nekkin bu mu nekkin impôt et domaine pendant quinze ans musul jël lu toll ni tal fatal ay nit ci dërëmu Sénégal te discours am moo ma convaincre projet Pastef bi moo ma convaincre moom laa saluer tey moo tax tey may toog mun naa léegi danoo gis ne Ousmane Sonko ñaari yoon a ngi bii dem mm-hmm. dañ koy rocc rek yóbbu mm-hmm. moo jur pompier ak ñoomin seen mm-hmm. ñu ne amul kaaraange ñu gis ne weeru mars amoon na taxawaay boo xam ne mars mille vingt boo xam ne jot ci Ousmane Sonko jour boobu. gars yi moom Ousmane Sonko dafa meloon luy lakkee seen loxo bàyyi ko mu demoon sax moo leen gënal ñu téye ko mais léegi gars koy téye ba leen neex ñu ko teg ci jël ay ndawam ñii buñ faatoo ñii ñi ngi ci kaso bi ñii gaañu nan. le trent maa ngi démb dégg Pape Malick Ndour démb. mu naan bii kenn du taal pëne mais dañuy taali ndogu man ko nag dañuy taal ndogu waaye lan ko suukaree lan gisul man maa ko ci yokkal. loolu mais. kuy kooku. mooy ministre de la jeunesse. man jeunesse Pape Malick Ndour ah moom la ko Macky Sall fal. ok waaw mu wax mu wax loolu le 30 ban taxawaay moo war a am pour la sécurité du Ousmane Sonko. bon le 30 ak ban tontu ngay tontu ci Pape Malick Ndour moom. kan. parce que mel ne yenn jeunes yi ci Pastef dañ ko ragal. ku ko ragal ah man du ma day. ku ragal Pape Pape Malick kan parcelle la dëkk ma dëkk parcelle. xam naa loolu. moom mooy kan démb mu ngi mel ni tey si ñun ragaluma ko tiituma ko xofuma ko. Mhm. man je je le calcule même pas xaw ma sax kuy ministre de la jeunesse man benn ministre laa am sama bopp la maay sama ministre bopp de la jeunesse. Mhm. waaw léegi taxawaay bi le 30. le 30 taxawaay bi benn la rek fas yéene gunge suñu leader. mu <laughs> gunge ko heure bu ko gars yi bëgg ne coppet na ko coppet denc. <laughs> ah waa loolu ñoom la rek ñoom la rek l'essentiel proche na nekk si jaam rek. mais nekkul ci jàmm moo ko yóbbu hôpital. nan ngeen di def ba loolu du am maanaam lool du amati ban taxawaay la la maanaam waaw wolli na. benn Bassirou Diomaye taxaw fee rek di discours benn kii di taxaw di waa yeew di conférence de presse kenn du ko accompagner noonu un leader comme de l'or or dañ koy sàmm mais. ah en tout cas daal li ma fi mën a wax mooy. lawoon mm-hmm. wolli na. waaw lawoon woon na. waaw lawoon wolli na. da nga ñëw junj waxoo ñu de. non mais nañ nañ yem foofu rek la woon woon na. léegi projet projet projet bi li nga xam ni moom la leen Ousmane parce que tamit euh, ne wax na démb ne xeex bi na ngeen ci ànd ak xel comme que yaa ngi ci réseaux sociaux yi euh, moo tax may ñëw ci loolu moytu yenn poste yi ak yenn kii yi nga xam ni parce que am na loo xamante ni wax ko ginnaaw ñenn ñi moom dañoo toog rek di xool seen kii uh-huh. pour xool ñu jàpp loolu nu ngeen ci def pour sensibiliser seen ñoñ ñi nga xamante ni bi ñu ngi ci réseaux sociaux loolu chaque jour que jëfee ñun ñun ñoo ngi ci chaque jour muy man muy sama yeneen morom chaque jour que jëfee ñoo ngi ci di sensibiliser gars yi ñuy xool lu ñuy publier et surtout dans les groupes WhatsApp di xool lu ñuy wax ak lu ñu warut a wax. parce que ya des infiltrés ñoom pour vous dire ils ont payé des gens yoo xamante ne tey dañuy infiltrer man man euh, je prends l' exemple du procès de Ousmane Sonko et, et cette fille là je veux pas prononcer son nom bi ñu demee tribunal il y avait un civil bu ñu doon suivre. daf ñu doon topp man ak euh, sama sister bi tax tey. ma toog fi muy maam jaara ma koy saluer de passage mhm. voilà dañ nit ki daf ñu doon topp ñu dem ba ba xam ne kii mu ñuy topp ñu dem ba si fi ñu doon ndekkee mu taxaw dañoo toog di ndekki mu taxaw suñu ginnaaw ba maire bi ñu doon jaay ndekki moo ñu ne yéen de kii depuis fee mu ngi leen di topp mhm. dañoo dem ba certain moment jaaru fipp poñe ko nee ko yow loo ñuy loo ñuy toppee mu génnee carte de membre Pastef nee ñu noo man Pastef laa ma ne ko c'est fou parce que carte de membre Pastef taalibe bii di yelwaan bu yelwaanee midi ba le soir mën na ko jënd 1000 francs lay jar cherul hmm. donc il faut que tey ñun ñu muus xam xam ni ñuy doxalee quoi di moytu yeneen post yi hmm. parce que bu ñu demee ba tëj ku reetaan donc je pense que boo bindee yenn bind yi di nga yàgg foofu torop nag d'accord Pape moo doon ah, ah, waaw dama doon wax ci projet bi comme euh, le 30 la le 30 euh, nee nañ peut-être amatut mu mënuñu koo puusaat quoi. léegi xalaat ngeen ne yéen di ngeen am ndam si projet bi am am ngeen seen stratégie bi ngeen di dem incha allah mm. kuy dem combat doo doo doo doo jénnee say arme mais am nañ ci yaakaar que ne nous allons sortir vainqueur incha allah. mais mais tey jii est-ce que nekkul ni da ngeen trompé wu de combat. ci ci ah. naka. mooy euh, président Macky Sall. Mm. démb dem na ci tubaab yi ci benn yéenekaay xaw ma express lu tudd je ne mm-hmm. ngi ci pousse ba léegi ay pion pour candidature am. Mm-hmm. alors que pour man la combat de l'opposition moo waroon nekk la non candidature de président Macky Sall parce que du candidature boo xam ne dafa jaar yoon. Mm-hmm. léegi mu détourné leen ci léegi talatoo leen ku ne boppam la tal est-ce que nekkul ni extra piège boobu da ngeen ci xaw a daanu. mosuñu see daanu ñu ngi toog di ko xool di ko déglu le président. Mm-hmm. mais mi ngi la mu bañaloon Ablaye Wade du fi amee. troisième candidature non à la troisième candidature de monsieur le président. mais ci ay wax rek. ba bon mun na ko wax mais du ko jëfee. non yéen laa wax. ñun du benn jéego bu ngeen teg pour ne ko déedéet. na ko wax. Mm, mm. waaw bu ko waxee. Mm. waaw dinañ génn tontu. Macky waxagul li li li. ah man de dégguma ko ah man moom damay damay wax sama digganteex yàlla. dégguma fenn fu président Macky Sall ne moom day présenté aux élections de deux mille vingt quatre peut être say ay ay ay doxinam ngay xool nga xam ne kii buntu lay wut. mais bon nit ki lu mu génnewu ci laaminam mënoo ko ko accuser kan. mën ngeen waat ni Ousmane <laughs> bañ bañ bëgg la ñun Pastef Ousmane Sonko mooy suñu kandidaa pour les élections de 2024 day bokk par force. Hmm. Euh, euh, lan lay eh, tëjee mën naa looy tàggatoo tàggatoo kontaan nan ah, macha li may li may tàggatoo di ne sama mbokk patriote yi rek focus sur 2024. waaw focus sur 2024 di nuyu les défenseuses de Ousmane Sonko parce que tey je suis ici au nom des défenseuses de Ousmane Sonko. di nuyu loolu na yow hmm. foo ah, xamul rek damay laaj na damay laaj rek. di maam Diarra mi def accident bi ci mitinu bi bu muy dem ci yoon bi tey moom moo ñu jiite. donc aujourd'hui elle devrait être là mais puisque dafa feebar ma ñëw représenter ko au nom des défenseuses de Ousmane Sonko dina jigéen ñi. Sénégal dañ cee am wàll nañu bay suñu wàll ba mu mot sëg bu ñu kenn foqatal